combat bi. lu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ñaaw ma wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat oo fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la man li ma wax moom laa xam mun sama kopp Fodé te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suuf la nga xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp. waaw d'accord loolu moom waxam la quoi. te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko ne puusal day puus pour man. fépp ci boteel Mboñaa nekk leen wax ñu wàcc parce que contre la déggee gis nañ stade bi ñu ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha allah bu ñëwee ñu tëj porte yi ci kàttanu yàlla incha allah. salaamaaleykum mbokk yi le huit la tafaatin Tine ñaa Niang national nationale le huit août incha allah rabbi dina tàng dina neex. waaw na ko amateur yëpp xaar lamb ju rëy lay doon. jërëjëf mbokk yi ñuy topp ci euh, Leewtoo TV ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam amati mbégte ak contentement bu baax a baax a baax ñëw euh, andi leen li gën a fës ci ëtt yéenekaay yi nga xamante ne bii ñu ngi bind ci wàllu làmb ku nekk fa nga nekk di ñu seetaan ne fekk nan la fa ne la jàpp suñu juróomi baaraam nuyu la gën gën nuyoo ne la asalaamualeykum xam ngeen ne nag seen revue de l'arène yéen a ngi ci ànd ak huile Zador di euh, diwlin bi nga xamante ne bii moo gën ci diwlin yi jigéen ñi jàppanteek euh, ñoom ñépp ci seen biir waañ xam na ne diwlin boobu benn diwlin du ko dab wante Zador ba léegi yemul foofu ndax ay produits li nga xamante ne bii moom mooy macaroni ci la bokk spaghetti ci la bokk wante tamit vermicelle ci la bokk macha allah ku du lekk loolu ba pare nag war nga cee teg ndox mu set ndox mu sell ndox mu oyof ndox mu bëri ay ferñeent muy Eau Kayar Eau Kayar moom tamit bokk na ci ñuy gunge suñu revue de la l'arène bi ñu leen di amal fii ci Leewtoo TV di ndox ma nga xamante ne bii sénégalais yi nee naa la ñoo ko taamul seen bopp bëggal ko seen bopp mi ngi noonu di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di namm sama xarit bi nag Ndeye Mbacke di ko wax yàlla na sa jàmm yàgg ñi nga lay namm bu baax di la euh, ñaanal bu baax a baax. jàmm ak salaam sama lonko boobu nga xamante ni bii jamono bii nee naa leen tey day reposé incha allah suba da ngeen ko gis. tey nag leen leen àndal ci li gën a fës ci yéen kaay fi ñu koy doore mooy face to face bi amoon fële ca TFM diggante Tapha ak euh, Boy Niang di combat boobu nga xam ne bokk na ci combat yi gën a neex. ci saison bi ren ñoom ñaar daje nañ fële ca TFM di passé mu mel ni ñoom ñaar nag ku ci nekk da ngay tegal sa morom ndëgg sërëx ku ci nekk li nekk ci yow waneegoo ko wala li nga war a wax. wax a googu moo tax suñu làmb ne gis nan face à face ba nga xamante ne bii dafa xaw a calme tuuti euh, booy Niang moom nee na combat bi dañoo war a bëre dañoo war a xeex te amu ci benn pression combat bi nekkul risque ci moom benn yoon te pare na ci côté yépp pour jàkkarlook adversaire am bi nga xamante ne bii moom mooy Tapha Tine le géant du Baol Tapha li mu yëgle moom mooy incha allah lu combat bi laaj rek dina ko def su laajee bëree. dana bëre bu laajee xeex tamit dana xeex te incha allah jouru làmb ja Boy ñaar dina xam ne euh, pom du moroom mu new loolu la wax ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, journal bi wante di leen di leen dig daje ñaari mbër yi beneen face to face bu nu war a amal le 24 juillet bu ci yàlla àndee boobu incha allah am nañ yaakaar ne dina tàng jër incha allah bu ñu jógee foofu dañuy dal ci ki nga xam te moom mooy Issa Pouye gannaaw ba ko Aliou Seye dooree mu daan amateur yu bëri di laam-laamee Issa yi day bàyyi bëre wala du bàyyi bëre tey nag mu ñëw ci suñu làmb toog jàkkaarloog ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy internet yi nee na ma bëre tey bàyyiwu ma bëre ëllëg tey laa gën a takk sama ngemb dugg ci làmb ji fa yéene jëflante ak samay adversaire te nee na kombaam ak ki nga xam ne moom mooy euh, Aliou Seyde lim ci waroon a def yëpp def na ko ci nee na làmb moo nekk yëfi jinne li ngay préparer ak li nga fiy fekk mën na bañ a doon benn dana waa caaro yi wax dëgg yàlla champion ya fa nekk yépp ànd nañu man préparé combat bi comme ni ko war a préparé ñëw suñu borom moom mi euh, xañe ndam moom xañ ndam mais li ma war a def ci combat bi yépp def naa ko nee na nag maa ngi xaar beneen avance pour ñëwaat ci làmb ji pour wanewaat sama bopp Issa yi moom moo yëkkati yooyu le kàddu ci euh, journal bi bu ñu jógee foofu dañuy dem ci combat bi nga xamante ne bii moom moo war a dox ci Mame la ak mbay Guy gi Ahmed Konaté nekk boroom xam-xam ba nga xamante ne bii ñu bëri ràññee nañ ko ci wàllu làmb moom mooy coach écrit kaay baax mooy ñëw di ñu jàngatal boobule combat nee na Mame Balla am na adversaire potentiel ba nga xamante ne bii am na client bu mat client ndax mbay Guy gi xale la am talent ci làmb wane ay preuve am ba yegg si fii mu yegg si te it dafa bëgg combat bi ni ko amet konaate waxee nee na loolu la gis ci nga xamante ne bii moom mooy mbay guy gi neena ma maam Balla nag ndaanaan la champion la bëree na ak ndaanaan yu bëree bëree bëri ci làmb ji wante dafa war a ñëwaat ci làmb dafa war a wanewaat leneen kon incha allah le 4 juillet ñi ngi xaar combat ba nga xam ne entre expérience la nar a doon ak la jeunesse ñu xool expérience mooy gagné la jeunesse wala la jeunesse moom mooy gagné expérience loolu incha allah le 4 juillet la fële ci stadium Iba Mar Diop. bu ñu jógee foofu ba léegi le 4 juillet boobu am na beneen làmb bu am fële ci arène nationale muy dox ci diggante Abdou juuf bu Waalo ak Gris 2 bu écrit Fass Ndakar Max Mbergane moom tamit di entraîneur euh, Lansar moo ñuy jàngatal boobu le combat nee na bi revanche la. ci ki nga xam ne moom mooy Gris 2 ndax Gris 2 Abdou Diouf dafa daan magam muy Gris Bordeaux numéro 1 Abdou juuf dafa daan magam mu war a ñëw nag jëlal magam revanche mu nar a nekk combat ba nga xamante ne bii du yomb ci Gris 2 ndax Abdou Diouf ndaanaan la ci làmb te daje nag ndaanaan yu bëri ci làmb ji daan leen bien vrai que am na benn champion bu dëkk Fass ñu koy wax Forza bëre na ak Abdou juuf ci diggante bi daan ko mais mën nañu jàpp ne combat boobu noonu tamit combat bu nar a neex la combat xale la ak mag wante daal lu ci mën di xew incha allah danañ gis combat ba nga xamante ne bii combat bu nar a neex lay doon. Papa Maxime Bergane moo yëkkati yooyu la kàddu ci journal bi bu ñu jógee foofu nag dañuy dem kalom mu am gala délit bu fa war a am incha allah bu ci yàlla àndee Saliou Diouf vice président amateur de lutte simple moom moo. boobu boobule gala mi ngi tegal mbër yi nag 1 million cent mille francs maanaam million ak juróom-benn fukki junne da tegal mbër yi foofu ci kalum kalum nag nekk dëkk ba nga xamante ne bii dëkku làmb la mais mise bu toll noonu mën nañu wax ne c'est une première mi ngi fay soog a am kon mën nañu xaar làmb ju rey mën nañu xaar làmb ju neex Saliou Diouf ne mi ngi invité waa suñu làmb pour ñu ñëw couvrir événement bu mag boobu nga xamante ne bii moom moo war a am foofu ca Kalom war a am samedi le trois juillet bu ci yàlla àndee bu ñu jógee foofu dañuy dem ci ki nga xamante ne bii moom mooy euh, euh, fële ca Kaolack Ndangaan Kaolack Ndangaan nag amoon na làmb bu neex diggante Lac Rose bu Kaolack moo fa doon bëre ak Tafa Gueye numéro 2 nekkoon deuxième euh, journée. ci saison boobu nga xamante ne bii waa Kaolack ñu ngi ko fa doon tëgg ki nga xam ne moom mooy Tafa Gueye numéro 2 nag suñu làmb nee na ku ci nekk gis na ni muy bëree mbër la ma nga xam ne dafa agressif bu arbitre soufflé dina jéem a dox sa kaw manœuvre la jëm la profito xam nga boo boo boo nayi fee mu daan la mais Lac Rose comprendre na ki nga xamante ne bii mooy Tafa Gueye ci ne muy bëree moom ñëw na ànd ak dal. direeku ndànk ba jàpp Tafa Gueye daan ko jël ba nga xamante ne bii amul benn werante loolu ca Kaolack ndàngaan la woon bu ñu jógee Kaolack ndàngaan nag ñu ñëw ci ki nga xam ne moom mooy Aliou Seye numéro 2 gannaaw ba mu dóoree ki nga xam ne moom mooy Issa Pouye mu daanu ñëw ni ci suñu làmb sekk ak ñoom waxtaan bu yaatu ñëw na ne leen combat bi risque la woon ci combat comme risque la woon ci man ndax ku ne xam na ci li ma jógee ak li nga xamante ne bii moom moo nekk sama kanam combat bi nekkul woon yoon sax ma di ko perdre bi may ñëw défaite nekkul woon sama xel bien vrai que préparé dóor mu daanu bi nekk na la nga xam ne lu ma dab ci biir làmb ji waaju ma ko woon parce que yaakaaroon naa ni Issa Pouye danañ jàppante bëre bëre bu neex mais làmb comme ni ñu koy waxee mën nga préparer lii leneen ñëw moo tax mën nañ na conseil conseil ba nga xamante ne bii mën nga dem ba ci biir làmb ji fekk fa leneen su boobaa da ngay jël li nga xamante ne bii moom mooy sa initiative bopp def différence bi te loolu la Aliou say def nee na nag li nekk ci kanamam ci làmb bañul kenn. ku ñëw mu bëre ak moom wante nee na du tudd benn mbër di ko may li nga xam ne moom mooy promotion wante nee na pare na pour bëre ak mbër yépp basiiru Babou ca lañ ci moom lañ jëm moom mi nga xam ne moom mooy ménager Sa Thiès di ménager Balla Gaye numéro 2 doomu Double Less nee na combat bi biñ demee ba mu des ay fan wala ci jour combat bi ki nga xam ne moom mooy Double Less dama woo dénku ma ne ma waxal Sa mu def ndànk te na respecté ki nga xamante ne bii moom mooy adversaire am mu ne loolu nekkoon ay ay ay kaddu ya nga xamante ne bii diisoon na ci sama kaw ndax ku ne xam na diggante way jur ak doom ni ni jege wantoo Double dénk ma kàddu yooyu noonu wante suñ borom defal nañu ndam ba ki nga xamante ne bii moom mooy Sa Thiès daan na Moussa Ndoye jël bu amul benn werante bu ñu jógee foofu ñu jëm ci face to face bi war a am samedi le 3 juillet foofu ci stadium Iba Mar Diop diggante Papa saw ak Siteu le phénomène de Diamaguène incha allah war a am foofu ci stadium Iba Mar Diop face to face boobu nag di nekk entrée euh, ñaari téeméer Pape Abdou Fall moom moo taxawal boobu le combat ñu mën a xaar ñaari mbër yi waxante. ñaari mbër yi jokkalante ay kàddu ñaari mbër yi waxtaan ñaari mbër yi def li nga xamante ne bii moom mooy bataille psychologique avant combat bi parce que face to face loolu moom moo tax promoteurs yi di ko organiser bu ñu jógee foofu nag ñu ñëw ci ki nga ñu dem ci les arènes journal boobu nga xamante ne bii Abou moom moo ko jiitee di journal ba nga xamante ne bii day bind ci làmb di soog a ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy euh, terrain bi di waxtaan ci euh, Sa Thiès moom mi nga xamante ne bii dafa jógee. ci 60 million digganteem ak Boy Niang bi muy bëree ak Boy ñaar loolu lañ ko fayal 60 million la bëree woon ak euh, Boy Niang jóge fa ñëw jël Moussa Ndoye ci trente millions mu nekk la nga xamante ne bii nag ku ci nekk war na ci def li nga xamante ne bii moom mooy jàngat mais tamit mën nañ jàpp ne situation làmb ak Covid 19 bi nga xamante ne bii moom la ñu nekk mën na nekk ay raison pour Sa Thiès jóge ci 60 ñëw ci 30 mais en tout cas. ak lu mën di xew ku nekk ak ni ngay jàngate loolu nga xamante ne bii moom la Sa Thiès def digganteem ak Moussa Ndoye bëre woon ak Boy Niang 60 million ñëw jël Moussa Ndoye bëre ak moom li nga xamante ne bii moom mooy trente million peut-être adversaire yee bokkul wala contexte bi moom moo ko woote mi ngi noonu bu ñu jógee foofu ba léegi ci les arènes ñu record la ñu jëm record ñu fekk fa Moussa Ndoye tête de file euh, écurie Yaraax moom lu mu yàqul waa CNG rek da koo fàtte dafa dafa mer bu futtu nee na CNG dafa mel ni làmb ji dafa am kumba am ndey ak li nga xamante ne bii moom mooy kumba amul ndey ndax Sa fi mu ñëw teg fi calam waru ko fa woon a teg benn nee na waa waa CNG tamit ci biir làmb ji ñu ngi ko doon accéléré di ko accéléré accéléré yaa nga xamante ne bii naan ko gaawal mu gis ne loolu defuñu ko ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès benn yoon kon daal moom li mu mën a jàpp mooy làmb ji dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey Moussa Ndoye bu écrit yaraax moo yëkkati yooyu la kàddu mbokk yi loolu moo nekk li nga xamante ne bii moo gën a na fës ci ëttu yéenekaay yi nga xam ne heure bu ñu xëyee ci làmb la ñuy bind ñu di leen jaajëfal bu baax a baax nag ci topp mi ngeen di topp Leewtoo TV di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon wante di jaajëfal sama jigéen sama xarit Binet Fall borom États-Unis d'Amérique borom branding hair maa ngi koy bëggee yaayu Fatima ak Serigne Mourtala kooku mooy séeri grand Modou Fall bëgg naa ci moom bu baax a baax di bëggee tamit sama doomu ndey Aliou Sène borom say jaamaane production Ousmane fay ñoom ñëpp ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV chaque jour ci revue la l'arène dig daje incha allah suba suba jàmm ci beneen numéro revue de l'arène caa ngeen combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loo ci combat bi loo bañul moom boo bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat oo moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Taphatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Taphatine moo dajeek ñoom fi ma ko teg bari na fu rëy a laa ko teg làmb ju rëy la man li ma wax moom laa xam mun sama kopp xol de te incha allah ci kàttanu yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am lu sifle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp. waaw d'accord loolu moom waxam la quoi. te maa ngi liggéey loo xam ne ni man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man. képp ci ba teel Mboñaa nekk del wax ñu wàcc parce que contre la déggee gis nañ stade bi ni ñu ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha allah bu ñëwee ñu tëj porte yi ci kàttanu yàlla incha allah. salaamaaleykum mbokk yi le huit la Tapha Tine ñaa Niang arène nationale le huit août incha allah rabbi dina tàng dina neex. waaw na ko amateur yëpp xaar la ju rëy lay doon.